à l'endroit de mes de mes de de de de. de, de la mouvance présidentielle la mouvance quoi. xam nga man li ma xamoon mooy tournée économique yi président moo ko doon def mais bizarrement bii PM e moo koy def. oui c'est ce que j'ai dit en fait loolu laa comprendre man tamit. mais mais avant c'est Macky Sall qui le faisait durant durant pourquoi maintenant qu'il est candidat ñu ko ko. durant tous ces douze e ko def. Mhm. exceptionnellement bii mu def ko. parce que justement il est bi mais xanaa boo demee yow yaay def yow la nit ñi di évaluer en tant que père ou le président bi nga xamante ne moom moo ko def. mais le président n'est plus candidat. n'est plus candidat mais kan moo réalisé projet yooyu noonu. waaw mais c'est. c'est le bilan de Macky Sall ah. waaw mais alors non c'était juste une précision pour vous dire. que une fois de plus. c'est-à-dire que les Sénégalais ne sont pas dupes gars yi ils lire entre les lignes. Mm-hmm. li nga xamante ne rek moom la ñuy préciser waat mooy que communication bi ñu bëgg a jël pour wax ne dañuy def continuité président Macky Sall jàpp naa ne du communication bu baax pour la mouvance présidentielle. Mhm. parce que les Sénégalais suuf tout à l'heure nee na le président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations c'est une vérité absolue mais son problème. mooy que on ne sait pas faire la faire la distinction des priorités sénégalaises. Mhm. dëgg la tali baax na mais nit ñi dañoo sonn cest à que nit ñi dañoo am problème pour dund nekk si jàmm je l'ai dit tantôt tey nous qui sommes dans les mairies quatre-vingt-quinze pour cent ñiy ñëw ci yow wallaahi problème bu dund ak location lañ lay bëgg a rayee aujourd'hui au niveau de la ville de Dakar pratiquement presque ay deux milliards lañ doon def ci affaire couverture médicale yi mais nit ñi dañu lay bëgg rey parce que ñëpp ay feebar doo faju koo si faju dina dee ndax amul lu mu fajoo mhm. location yi dafa tënk nit ñi dafa dafa xot nit ñi wax naa la ko deux chambres de salon Dakar ça veut dire sans exception moo gënoon a néew en termes de location boo mhm. jëlee au niveau du département de Dakar Parcelles Assainies deux chambres de salon je pense que suma camarade bii na doom bàyyi ma fen munoo ko am moins de deux cent mille francs léegi dootoo gis un appartement de deux chambres cent cinquante mille francs mhm. c'est fini et nga bëgg jël loolu. la population va leur faire payer tout ça. non mais vous parlez mais kan ngay teg lu mel noonu mënu la toogaatal xanaa loolu mooy continuer man rek. mais moom sax mooy campagne de maa dagg non non non non non non non laissé un peu parler balaa ma lay dagg bàyyi naa la nga. campagne nag maa dagg. même boo xam bàyyi naa ko ñu bi la am bi sax. yaa ngi koy bàyyi mu ngi campagne bi quoi. damay damay jël dégg parole bi xam nga xam nga su ma doon campagne ma doon campagne. oui ak i campagne rek naan ñun suñu ñëwee dinañ def lii. Mhm. ñun suñu ñëwee dañ def lii man ba léegi tudduma sama candidat. mais dama bëgg wax ne communication bu ñu bëgg jël ne dañuy assurer côté mel la du communication boo xamante ni dina yomb dugg ci bopp nit ñi ndax les gens ils de par la situation. bi yenn mhm. moom la ñuy dund. merci beaucoup. Okay. Bokar, euh, sur la question.